koor gi ngi nii tey rek tey daa métti lool daa teel a métti sama côté parce que tey maa ngi nii gis nga ma tey sax damaa karmat daanaka tey yeewu ma damaa karmat addo xëdduma mana kemana bumi juk ba may jug ci lal bi laay dégg salaatu ba may ci lal bi lal laay dégg salaatu te xam ni góor gi njaay war nañ xoolaat daal baax na ci dégg bu dee kaasu ndox ngay naan sax nga naan ah waaye nag aussi ah événement bi mu ngi bëgg atelier man de dafa dara dara dara dara dara ci ne ngay def xam nga xale yu jigéen waaw ma ni la yow daaw am naa ci problème boo xam ne benn bi daal dama ko ñëw lu pare rek mu ne ma léegi nag ah jamono jooju gëj naa kër gi ma ne ah moom kay loolu téer yàgg na ci loolu. waaw waaw waaw <laughs> daanaka daal awra daal awra noonu. Sandaga ca suufu escalier. waaw <laughs> si amoon na benn table bu doon nekk noonu ci wet gi noonu. <laughs> foofu sama table la woon. ñëpp ko bokkoon. waaw foofu bokkoon foofu kay moom. waaye daal ah yàlla nañu yàlla jégal daal yàlla bu ñu jégalul dina metti de. waaw. naa ma yàlla bu mu jégalu dara yàlla jégal ñu rek. ah mu sori. waaw gisoo ko nii <laughs> gisoo ko nii sax moom comme julli nañu tàkkusaan bi ba pare. ah ci des pare métti na de wax dëgg si yàlla. bu ma jàngutoon tuuti. kon tey daanaka tey kon dinaa def njaaxum kon ci tàkkusaan bi de. dëgg si yàlla waaye daal yàlla bëri na sutura daal yàlla na yàlla dolli ñu sutura. moom heure bi moom bu jotee moom xale yu jigéen ñi ni ñuy doxantoo sax dañ koy wàññi. kii Moussa. kii li muy def neex na de. da nga kaa xam Moussa. ma ne kaay est moom la. ah yàqal nga ko fa mu nekkoon de. di ko rafetlu kuɓawi way ɗumo niri foye juume so yiɗi inne e rira ɗumo niri lere fuy nik wide jaɓe ah, ɓoobi nik ɗin amérique ɓoobi nik ɗin wor ɓoobi n jaɓino on iceɗi ɓuɗi weeru kordal podal honori ngo dal mbaɗata o nak say quoi ɓen kono noom yawi wawi a e probléme we probléme en fait eh, mane pono ringa ɓe poni ɗin caɓni ñi ah, samedi yaay pono ringa ɓe poni ɗin caɓni ñi samedi yaay damaa bëgg nga may ma sama jàmm ak sama salaam ah. yow eh noonu bu tegge ndawal nga yow kii di wax ak yow pour te sa adduna may wax nga naa kaan nga bàyyi ma ma nekk sama jàmm may wax nga jàpp xale bi xale bi jàpp la fu nekk mu dugal fa loxo nii mel ni ku yor sa jugóot fen li noppi yaa ngi dégg eh. yaa dala tur góor kat yaa ma gën a xam ne ko wax na ma ne na loxo bi lay baal xale yi dañoo nekk ay ndaw nekk seen waaw kay yéen ñaar daal li ngeen di wax nit amoo leen ko parce que kenn du jubal si yéen jadd rek ngeen di def waaw nañ dem faar jox ñu cër waaw ban cër laa jox fii eh jox ñu cër lu ñuy def lu ñuy lu ñuy wuti faar salaamaaleykum eh, eh, naa ma dañ ma de même ma ñëw na loxo bi dañ dama ne yow na loxo bi dañ na man maa la naw man waroon ngaa jeexoon. wallaay maa la naw. ma ko dóoree ci sa nopp bi. wallaahi bokk ngay dégg. man de mos naa kaa gis moom. moo fi nekkal diine. wallaahi. ah. damaa te xaw. moo diine waxatal ma dégg. ma la bàyyiwoon nga dóor ma yow. may xaar ko dóor. weeru koor la nekk. Moussa kii sa kii du sa nijaay. a suturaal ko. oh Moussa. ñaata yoon ñaata yoon sa nijaay chaque jour day wax chaque jour day wax chaque jour day wax. mais tey yaa tey yaa xam na laa bëgg. tey maa jël loolu a laa eh, dama bëgg nga xam ne nag ah sama bàkk bi dama koy yëkkati ca kaw de. wala sama sama bàkk bi dama koy yëkkati ca kaw. Ah. maa fi yor cër. maa fi yor dagal. waaw ak. man dañ laa faale. ah dogal. Eh. asma bi bu ko jàppee day mel ni ku fàtte. ak lan bi sa kàddu yi de. waay. tey yaa fi yore lan nga ji lu xew. ak diine maa fi wertu cër wertu dogal da muy dëgg fan ah, eh. oh. da ko yor laa bëgg a xam ak sañ-sañ déglu ko mu wax sañ-sañ fan yow biir kër sa biir moom la Assane kii moom eh toog ko waxatee ma dog sa gat kiri wax Assane kii sa waay nga naan man baabu jom yow kii di kilifa kii di muskala donc eh dama ni nga tëj sa lamiñ mi sa gàttaay waxaat ko gis nga li ñu la eh yow sa loxo yow ñu ngi wax ak kii léegi pare guñ mais nga naan ngay kii. waxaat ko eh waxaat ko waxaat ko ñii ay seytaane lañu. waxaat baat bi eh waxaat baat bi ca kaw. dàq naa la fële ah. sama sama kër. kii kilifa la kii nekkul koo xam ne foo ko fekk toroxal. waxaat baat bi indil benn seytaan ci weer. bi yow moom kër nga may fekk. ñàkk weer yow léegi da ngay tontu ah. sën na yaay maa woon sama lamine. bu tontu fii rek tontu ko maa woon sama lamine bu tontu fii rek tontu ko de. te ki ma dese que ni ngeen wax ñu ni la. waay tuuti da ngay jar kii àll. waay dara mais nag ko ci ngeen la lawin si foog ngeen a àpp. chaque jour maam jàkka ja. dama su fekkee moom jàkka-jàkka kay kar moom yàlla la ëpp doole wallaay yàlla la ëpp doole te moom lay ànd kii na tudd la bu baax toogal moom sa yaram kii war naa gas moom baaxul toogal xam naa la bu baax kii kay man kay xajatuma fi yéen gàcc gi ngeen ma teg tey barki di le wóor na yàlla bul daanu bul daanu de fi toog bàyyi bul daanu wóor na yàlla bul daanu bàyyi bàyyi moo ngi toog la bàyyi indil nañu seytaane na kii dama ko yàgg xam askala sandaga mus na fa daanu ba askala ba dam ma jaata jaata léegi lan moo ci pexe ah ja xaar mu dugg ci biir kër bi woo xale yi dawal indi dox dox jot na ba pare dawal naa ita yi wax ah. du ma ko bi